Khalifa ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant également donc par rapport ak euh, situation Maroc dañuy ñëw ci chiffres officiels yi donc euh, actuellement ñu ngi ci trois mille vingt neuf cas deux cent vingt neuf cas qui sont recensés donc qui ont donc la maladie euh, Covid dix neuf. il y également cent quarante cinq décès et par cent quarante cinq décès et 395 guéris donc loolu mooy situation Maroc par rapport ak euh, Casablanca dëkk bu ñu nekk mu nekk donc euh, la deuxième ville marocaine donc il y a 855 cas déclaré positifs donc au Covid-19 donc nag euh, tey loolu mooy situation officielle bi donc par rapport aux chiffres par rapport également aux mesures qui ont été prises par l'État pour endiguer donc cette maladie, cette pandémie, pandémie l'État syrien donc a pris donc des mesures très forte donc allant dans ce sens. soo xoolee donc depuis le début du mois de mars mesures yu njëkk a jël moom mooy tëj restaurant yi tëj donc bërëb yoo xam ne rassemblement mën na fa am donc c'était la première décision le 20 mars donc il y avait l'état d'urgence et en même temps donc le confinement total parce que nit kuy génn da nga war a mën a justifier donc sa génn donc c'était le 20 mars donc le 20 mars le 20 avril donc euh, il y a de cela quelques jours ils ont renouvelé donc euh, ils ont renouvelé donc euh, le confinement donc tey renouvelé nañ ko ba le 20 mai donc par rapport ak donc mesures yi yi gis nañ ne c'est très corsé donc par rapport donc à la situation li ñuy faral di wax rek donc la situation situation, elle donc il nous faut donc des mesures exceptionnelles donc pour pouvoir donc lutter, pour pouvoir également gagner donc cette guerre sanitaire. Donc tey loolu moo fi nekk situation par rapport ak Maroc donc Maroc nag euh, donc dafa nekk euh, réew moo xam ne ni destination sénégalais yi la donc sénégalais yi donc lim bi lim bi fi nekk takku na lool par rapport ak loolu y a des sénégalais qui sont des étudiants yaa y également des Sénégalais qui son des émigrés dañuy ñëw pour liggéey daan doole seen doole yaa également donc euh, donc euh, des autorités consulaires donc euh, naturellement donc loolu mooy situation yi euh, donc cas sénégalais yu nekk biir Maroc. Très par rapport ak donc coronavirus bi également tey yaakaar naa ne comme nu mu handicapé donc tout le monde donc noonu bàyyiwut Maroc également bàyyiwut notamment Casablanca. donc mu nekk une ville économique une ville boo xam ne nii dafay dajale pratiquement la monde entier donc nekk un carrefour donc ci biir Afrique un carrefour donc ci biir àdduna bi yépp donc tey li ñu fi noté mooy une paralysie donc activité les toutes les activités économiques donc ont été paralysées à cause donc de cette pandémie tey li ñu noté également xalifa mooy que ni tey sénégalais yi ñu nekk Maroc donc dafa am ñu bëri dañu nekk situation d'irrégularité également donc par rapport ak seen situation d'irrégularité boobu donc il pas une protection sociale donc euh, ñu ñu ci nekk ñu fi bëri donc ñu déclaré chômage technique donc ils ne peuvent pas donc recevoir une partie même de leur salaire. Hmm. ñu nekkoon aussi pour montrer juste que ne dayoo donc bu Casablanca am donc ci Sénégal mooy que ni dem na ba am na benn marché bu ñu tuddee marché Médina euh, donc ci biir marché Médina bi dafa marché sénégalais donc pour wane juste que Sénégal li mu yi nekk Casablanca. Mm-hmm. donc ñooñu ñooñu ñëpp marché bi tey tëj nañ ko marché sénégalais bi ñu ngi nekk ci tiitaange ñu ngi nekk ci njàqare également. donc di soxla également appui donc donc l' état di soxla également la donc euh, l' appui donc des autorités consulaires donc xalifa tey loolu moom mooy situation bi donc par rapport donc à cette maladie par rapport à cette pandémie. alors Mortala Dia euh, foofu la ca Maroc ni nga ko waxee am na ñu fa dëkk am na ñu fay jàng ji. mais am na ñoo xamante ne dañuy ñëw di dem di def jënd ak jaay euh, am na certainement ñoo xamante ne nii euh, tëjtalu frontières yi tëj na leen fa euh, ndax am nga ay information si si si si ñooñu ak si c'est le cas nu ñu toogee. Khalifa posé nga question bu pertinente bu am solo. donc comme li ma wax sànq rek dafa nekk destination boo xam ne c'est très par les Sénégalais jënd ak njaay mi aussi sénégalais ñi ngi dem ak dikk bi bëri na lool donc am na lu ñu fi nemmee ko woon nag ci euh, ba situation donc euh, fermeture frontière yi ba ko Maroc décrété donc am na sénégalais yoo xam ne nii donc euh, ils étaient piégés la parce que ñoom dañu ñëwoon rek pour jënd delluwaat Sénégal ñii également dafa am benn aspect culturel bu am biir Maroc mooy bu ñu fàtte ne donc fii la fii leen denc donc Cheikh na Ahmed Tidiane am ñoo xam dañoo ñëw rek pour ziyaare donc euh, ndog ndogal euh, dal leen fi donc mais euh, le gouvernement sénégalais avait pris également donc des mesures assez responsables par rapport à cette situation là donc de ce fait y avait un vol même spécial donc qui a été donc mis à leur place donc pour ces sénégalais là donc qui voulaient rentrer au pays très bien kon ñooñu mujj blocage bi mujj na débloqué parce que mujj na leen defal vol spécial ça c'est très bien alors euh, beneen mbir mi mooy euh, communauté sénégalaise bi nga xamante ne ñu ngi foofu est-ce que ñu ngi yëg euh, taxawaayu autorité consulaire yi en tendant ndimbal gi nguur gi yëgle daal di agsi ci yéen. waaw question boobu dinañ sant lool parce que bokk na tax tey li tax ñi alerte bokk na tax tey. tax ñi interpeller donc euh, toutes les autorités en commençant donc par le chef de l'État son excellence le président de la République donc notre ministre tutelle également donc monsieur Amadou Ba ministre des affaires étrangères donc par rapport ak soutien bi ci war ci ces sénégalais là comme ni ma la ko waxee sànq rek ma revenir laat ci tuuti donc ces sénégalais la qui travaillent dans le secteur informel donc ñu doon yëngu ci secteur informel bi tey pour ñu fay seen location sax pour ñu fay seen loyer donc day nekk lu ci lo ci ñoom. pour s'alimenter également convenablement dafay nekk loo xam ne lu utile la également su ñoom donc ndimbal nag par rapport actuellement à l'heure donc euh, tey actuellement heure bu ñuy wax nii force Covid 19 bi donc euh, ndimbal li yegsee gut bien vrai que y une plateforme ki a été donc dédiée aux étrangers pour qu'ils puissent s'inscrire sur cette plateforme mais par rapport ak autorités consulaires yi donc les sénégalais sentiruñ loolu. Mais, mais nag yaa une solidarité entre nous, donc il y une solidarité mécanique avec euh, donc, euh, tous les Sénégalais. ngi jàppalante sur biir parce que loolu mooy suñu waref. suñu demee ba donc suñu réew Sénégal ñëpp di jàppan jàppalante ñii di jàppale état pour ànd xeex maladie bi donc day wareef day warugal donc ñun également ñi nekk ci biir euh, royaume bi ñun ñu nekk ci biir donc Casablanca ñu ngi jàppalante suñu kéem lay kattan. Hmm. mais nag ndimbal loolu ngay wax venant donc des autorités consulaires. donc nekkut lu Sénégalais yi donc sentir donc au quotidien. xalifa mm-hmm. mais mais mais dafa mel ni da nga ni euh, am na ndimbal lu jóge fii ñëw si yéen c'est ça. non euh, par rapport donc ndimbal li suñu biir la donc c'est la solidarité entre les sénégalais qui sont là. très bien mm. mais loxoy état loxol euh, les autorités consulaires nekkul loo xam ne ni jot nañ ko actuellement. mais dé déggoo leen leen déggoo leen leen ci ay conseil déggoo leen leen ci ay ay j'ai pas bien entendu. pas bien entendu. est-ce que bi affaire bi xewee comme ni ko réew yu bari di defee euh, ñëw nañu vers vous communauté sénégalaise euh, pour jox leen ay instructions wala yu ñu méngool. waaw loolu nag euh, ñàkkul parce que ñu ngi communiqué donc ñu ngi communiqué donc tous les autorités consulaires ñu ngi chargé wu di communiqué di relayer également l'information. donc également entre nous également. nou euh, on a créé donc des plateformes à travers des groupes WhatsApp également, mm. pour que les Sénégalais puissent se réunir, de les lancer également, di leen véhiculer la bonne information. Très bien. Nous les Alors, inciter également tous les oui. à respecter donc toutes les mesures qui ont été, qui donc par ce, ce, royaume donc euh, euh, au Maroc. Donc par rapport ak donc euh, suivi bi ndimbal li les Sénégalais di gën a xaar ndimbal li également moom la Sénégalais yi nekk Maroc donc di joytu loolu moo nekk tey le quotidien donc des sénégalais qui sont actuellement au Maroc. mais par rapport ak. alors euh, li ma la bëgg a laaj pour terminer mooy euh, foofu euh, du Maroc nan ngeen gisee situation bi fii au niveau du Sénégal surtout côté population. waa côté donc situation Sénégal bi donc dafa nekk loo xam ni également tiis la ci biir Sénégal. Euh, juste rek di rassurer tous les Sénégalais di rassurer donc les parents qui son donc au Sénégal ñi inquiété wu également si ñun donc situation Sénégal bi jàngat bu ndaw bu ñu ciy def moom mooy que ni dañuy remercier d'abord le président de la République son excellence Macky Sall par rapport au mesures qui ont été prises également di leen ñaax par rapport ak la communication communication bi donc dafa nekk loo xam lu am solo la xalifa donc ci lépp loo gis il faut que donc le mal la maladie soit dans l'imaginaire des Sénégalais ñi xam ne également donc euh, maladie bi contagi euh, contagion bi da donc dafa nekk lu gaaw. Hmm. donc les jeunes également au niveau donc des communautés euh, donc de dans le monde rural on a senti donc l'engagement la détermination des jeunes ñu ngi leen di gën a inciter à ce que donc ñi perpétuer donc cette mesure la parce que dafa nekk loo xam ne nii su nit ñi amee la bonne information. comme euh, pratiquement nu koy maison de presse di defee rawatina ITV e rawatina également seen émission bi dafay bokk nekk ci luy consolider donc xeex de euh, feebar bi xeex mbas mi pour mu jógee ci Sénégal donc nag tey euh, par rapport ak le président de la République mesure yu mu jël sànq wax naa ko day nekk mesure yu ñu rafetlu bu baax a baax bien vrai que nag donc tey y a des par rapport donc à aux autorités parce que ñun donc li ñuy gën a naqarlu moom mooy suñu gisee marché di tijji yenn marché di tijji donc y de ces marchés amuñ tey donc di tijji ba euh, situation bi fu mu toll nii juste pour walla évolution maladie bi ni mu gaawee ici au Maroc euh, Khalifa euh, le 28 mars donc 2020 nous étions à trois trois cent vingt neuf cas. Hmm. actuellement on est à trois cent on à trois mille donc deux cent vingt neuf cas. par dix donc pour montrer donc crescendo bi am. donc ci euh, pouvoir conta contagion bu maladie bi am donc loolu day tax donc sénégalais yi tey autorité administrative muy préfet yi muy gouverneurs yi donc il faut que ñu euh, jël toutes les responsabilités donc jël toutes les mesure qui si donc pour que donc donc euh, feebar bi mbas mi ci biir Sénégal. bien par rapport ak également Khalifa. oui donc communication bi mu doon wax sànq dafa am solo parce que ku nekk ni ñu koy aborder ku nekk ni ngay communiquer ak moom. donc y a il doit y avoir communication boo xam ne day sélective donc ñii nii la ñuy communiquer ak ñoom ñii également nii la ñuy communiquer ak ñoom parce que situation bi moo nekk situation bu xaw a complexe. situation boo xam ne nii tey day doog a dal mën nañu wax ni donc ci lu ñu fekkee day doog a dal Sénégal. donc donc il faut que communicants mobilise il faut également donc les socio-anthropologues également parlent par rapport donc ci situation bi parce que dafa nekk maladie boo xam ne nii donc waruñ bàyyi benn couche. war waruñ bàyyi également benn euh, chercheur pour ci xeex bi donc nañ mobiliser toutes no forces et on a constaté également quelque chose xalifa par rapport ak la solidarité nationale donc bu ñu renforcer par rapport donc au civisme par rapport également bëgg sa réew donc loolu day nekk loo xam ne rafetlu nañ ko lool di ñaax sénégal yi également di ñaax donc euh, sunu su euh, surtout jeunesse bi ñu respecté Donc, c'est très bien. Ces mesures-là, ces mort. Euh, je pense que euh, professeur Mor li mu fi wax a wax a wax a wax je pense que lépp euh, lu am solo la am na mu fi jukki yoo xamante ne nii mm-hmm. Mm-hmm. ci wàllu sociologie yu ñu méngool mais pour le pour le rassurer mm-hmm. si si comité de gestion bi am nay socio anthropologue effectivement ñu si terrain bi jour et nuit